alhamdulilah alkarim silmilan ala stighaali bi furudin wa sunan sakartuhu li annu qad saxani li watani bihi nafa ma anfani bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh allahuma zakkirna kulla ma nasina wa allimna kulla ma jahilna mbokk yi ñu dul siwaat ci 1930 euh, euh, nekk ci weeru rajo waaye nag lii xew ci euh, sunu sunuy dëkkandoo di ay jullit muy ci réewu turc ak Syrie mu metti lool lool démb maa ngi fay wax ak ku koo xam ni doom la ci nun nekk soxna wax dëgg yàlla waaye nee ñoom gisul benn Sénégal daal bu ci bokk xanaa daal moom fi mu nekkoon moom yëg na ni maanaam yëngal na bâtiment yi yëngu yëngu suuf bi te mbokk yi suuf su yëngu dafa doy waar euh, bu ñu la waxee nangami kilomètre la ci suuf nga xam ni maanaam foofa la yëngu waaye gis nga ko immeuble bu dem ba lépp lu li na ci kaw rek ne ci kaw lépp dugg ci suuf mbokk yi anañu ne ñu dëkkan ci suuf anañu waxuma laa ñu dëkk ci kaw kon am na ñoo xam ne duñu leen gis metti na metti na trop trop na ñoo xam ne ci lañuy ñàkk seen famille am famille yoo xam ne ñoom ñëpp dañuy daal di dañuy daal di jeex waaye nag ki ko def sunu boroom te alayhi salaam waxan nanu màndarga yi nga xam ni tukki cël àdduna lay wane mu am yum tudde yu ndaw ak yu mag yu ndaw yi bokk boroom xam-xam yi buñ koy lim moo ci boppam la ñuy jiital <coughs> yónni gi ko yàlla yónni <coughs> moom aleyhi salaatu wasalaam bokk na ci bokk na ci euh, màndarga yi wane ni àdduna mu ngi bëgg a jeex ndax yonent yi dañoo bari lool trop trop trop téeméeri téeméeri yonent yàlla di leen yónni di par kenn ba ndaw lu mujj la nag kon kay kooku mu ngi ci mujjug jamono misaal na ko ay yoon euh, suurul fitan euh, fitna bu bu bu bu bu bu tasaaroo fitna bu baree baree bare bari bokk na ci lii wane ni bis penc mi ngi ñëw bokk yi fitna ji ñuy dund xam ngeen ni du jàmm ci wàll goo ko xoole rek noonu ci fitna joo xam ni moom ah, yàlla yam foofu waaye te fitna reyante xeex ci biiru réew bañ caa bokk ci suñu réew mi mbokk yi waaw su urul fitan diyaawul amaana nee ci la bokk day dem ba nit ku wóor daal léegi day jafe ndax daanaka rek kuñ fi xam buñ ko càmbaree dinañ gis lam waxankat bokkul ak li mu def léegi lam waxan nee na waxatu ko lam bonalan baaxal na ko lam baaxalan bonal na ko seet gis nga diyaawul amaana kon ana nit ku wér bokk ana nit ku wér te seeb waxal ni nit dëgg maanaam ku say sa bopp féete kaw say tànk jëm suuf nit la waaye nit dëgg nag mooy ki nga xam ni waxi daawam day day dëppoo ak jëfi tayam wala waxi tayam léegi nag noonu ananu ananu bu fekkee man ngaa tàmbalee ci nit koo xay faluñu ko dara tey mu wax li ëllëg mu génn ca kii ñu fal ko def ko ab mm, ab lan maire wala ñu jox ko postu postu euh, directeur général wala ñu jox ko postu ministre wala ñu jox ko poste député wala ñu jox mu jiiteem réew mën naa daal di génn ci la mu waxal léegi léegi wax la neen lu bees mën naa wax léegi ngir lu neex diw mii kese waaye xam na ne lii du yoon ndax moo waxan bëkk démb ni lu yoon kon koy mbokk yi diyaawul amaan nee bokk na ci yi waral ni bis penc mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi àdduna mi ngi jeex kasratul qatli wa intisharu zina wa saraxa nee na rayante gu bari ak tasaaroo njaalo ak càcc gu tasaaroo càcc gu tasaaroo ñaata dé ñaata détournement ngay dégg yoo xam ni <clears throat> day bari trop trop xanaam ñi koy def dañuy bari waaye la ñuy ne day bari ñaata ñaata ci réew yi ak réew mi nga dëkk mi ngi noonu ñun te waxoon na ko wa intisaaru zina tasaaroo njaalo njaalo nag moom ni mu tasaaroo moom moom moom moom yéeme na ndax moom comme dañ koy protéger ba fexeel ba boo ci bokkee eh, ñëwal nga am sa carnet di di faju daal loolu lañ lay tere waaye bu fekkee ne amoo carnet bi dañ lay jàpp ndax nee nañ dañuy protéger nit ñi nga xam ni ñooy am ak yow pour ñu bañ a am jàngorooy au lieu nga teelee njaalo sax yu Youssou laa wax rek nee na bu fekkee ndox mi ñëw xam nañ fa muy jógati li ñoo bëgg ndox mi du du du di ñëwati xam nañu robine bi fi mu ne nañ dem ca wan ba rek nee na ñu ñu ñu fermi ko ñu koy wala ngay jàpp nit kii njaalu te amul këyit yow tereel njaalu benn yoon ni nga ni sàngara kenn ni nga ni yàmba kenn du ko fi jaay neel njaalu kenn du ko fi jaf ka nekk néegam di ko def nag te génnewu ko kenn yëgu ko kooku waxeesu ko waaye kii ñëw taxaw ponti wala taxaw ci eh, lieu yoo xam ne buntu baar yeeg ah rawatina nag jamono jin toll nga xam ni am na ñoo xëy ci internet bi ci la ñuy jaari seenu njaalo wallahi ku bëgg jigéen ñu am nangami nangam ku bëgg nangam nangam nangam nga jëw wone subhanallah alayhi salaam wax na ko lii lépp noo koy dund te bu duggee ci suñu nopp bi wala lu liir kon lu tax lu soppeeku doomu aadama mu dëgër bopp chettt wa min alaamati saati an talidal ummata rabbata len bu ñu demee ba bokk na ci lii wane ni bis peñ ci jigéen na bu ñu demee ba euh, mbindaan di jur ab sangam loolu boroom xam-xam yi dañu ko yaatal lool loolu dañ ñëw def defal ko waxtaanu boppam xam naa yeneen dañuy tudd rek tomb yi waaw ki nekkal ab uh, sàng tey jii mu ngi topp ci ginnaaw koo xam ni moom moo ko war a jilif waaye alal la tax jamono su wël dafa wëlbatiku mbokk yi bokk na ci su óorul faash waxaat roxam nee na fisal mbon ak dogu bokk nee yii tamit bokk na ci yi wane bis penc mi ngi ñëw xam nga lii ñu ñu bëgg a reye eh, yéen ànd sàmm jikko yi bu ñu waxee ngeen góor jigéen góor jigéen góor jigéen ah, leen jàmbur yi am nañ ci seen droit ndax am nañu fi def lu araam xanaa yéen gisu leen nangam na ñu ni leen waay waay ku yor sa ngóor jigéen doo ko mu manifester wu génnewoo ko ci biti da ngay nëbbuti di ko def buñ demee ba xam ko suñ yoon nekku ca waaye ki ñëw bëgg nag ni dañ ni bàyyi ñu manifester ñu am ay droit wut seeni association di provoquer ay nit di leen ci dugal te nu xam ci lu wére wére wére wére wére ah wut seen drapo bopp ah bëgg a nekk lu mel ni benn état ci biir adduna bi boo xam ni international lay doon yëmatuñ ca ñu bëgg dugal ci programme yi njàngale yi ba yenn yi dugg mbokk yi yow nga ni pat ah ah waa jëy nëbbutu léegi di log di di di def lu araam eh, am na jëkkër walla am na jabar muy sàcc di njaalo léeg-léeg loola kenn wax ko dara waaye mbon goo xëy la nga ko bëgg imposé jamono ndax liberté liberté liberté liberté rek bu ëpp baaxul baaxul waaw nee na bokk na ci lii wane ni àdduna mu ngi jeex kasratul kasratul kasri bi saadatu suuri wa mawtul fajati wa ruurul kaasiyaatul aaliyaat nee ku tedd ki nee ci am njàngaleem boo demee ci euh, boo demee ci al euh, ahlaasu nihaaya wa nihaayatul aalim di nga ca fekk wax jii may wax Mohamed Hassan moo ko taalif nee na fen yu bari maanaam fenkat yu bari duutoo xam koy gëm ku jàpp ni wax dëgg yàlla xel mi mu yore ak fi ko nit ñi teg nga dem ba gis ko muy wax lu dul dëgg léeg-léeg mu féete ci côté nitu diina la léeg-léeg mu doon nit koo xam ni geneen wet ga lañ koy féetal comme Sénégal moom dañoo am ay politiciens am ay nitu diine moo tax léeg-léeg wax fi day jafe lool ala kulli xaalin taqaaraba zamaanu taqaarubu zamaan wa nuqsaani al amal wa kasbu sox ak yeneen ak yeneen maanaam mondialisation bi bi bi bi bi bi réew yu mag yi bëgg nga xam ni ñoom la leen ca arrangé moo tax ñu koy def bëgg ba seen culture bii ñëw mëdd culture africain yi Afrique du ñu am culture su ko defee ñun ñëpp dañuy yem euh, lañ bëgg ñu man ko ñu duñ ko imposé ay film yoo xam mën nañ la koo may sax film yoo xam ni nañuy dund ca Amérique ñëw sab télé boo xam ne national la ñu jox la ca lu bare bare may la ko boole ci sax xaalis bu leen neexee ngay teg culture yu ñooña subhanallah say école say boroomi xam-xam la bind doo ko ci jàngale mukk ñoom ci tubaab yi ngay jël ñoom seeni maam seeni borom xam di ko jàngale ah boobu man jël mondialisation di moom bu ñu ñëw fii moom jëlul visa moom ku soxla ñëwal rek boo ñëwee boo fi ko suuf da yomb lool lool wax dëgg yàlla waaw waaye nag nun cey boo bëggee dem junni la bu ñu sàkkoo ni li ñoo bëgg a dem xañ na ñu ñu may ca téeméer juróom-ñeent ñeenti téeméer yi yëpp seen xaalis dañ koy perte ka ci joxoon cinquante mille pour ay fere yoo war a def pour visa da koy perte loolu ñaata million la ah loolu mooy mondialisation et la nga gis gaa yu assimilé yi nga xam ne dañ laa eh, ustaas yi ñoom dañoo xamuñu dara ci mbir yi ba pare léegi ñu noppi maanaam kooku nga xëy dafa gëm tubaab bi tubaab bi ñoom ñooy seeni sëriñ ñu mel noonu tubaab bi moom ñooy seeni sëriñ wax dëgg yàlla mu ne fi de yi ñu bare bare bare tubaab yi ñooy seeni ndax nun dong yii ni wax fi ñu teg suñu sëriñ ñoom fu raw lañu leen teg ñoom waaw wala woo ko fu mel noonu lañ leen teg ndax ñoom mun ñu loo raw waaw defal mu def bàyyil mu bàyyi di yaatal ay xalaatam waaw sa population sax ñoo la jaaxal ndekoon sax di nga gën a def liñ bëgg cent pour cent waaw yooyu nag moom jëmul kër mbokk yi yii ma waxagun yépp nag mooy alaamatu suxra ñu ko boole ci Euh, euh, màndarga yi nga xam ni mooy jiitu gis nga ko euh, taslimul qaasati wa fashwu tijaara ak taqaaribul aswaaq wa intishaaru riba wa sharbul xamr ak raful ilm wa intishaaru jaxl bu mujj bi nag moo ci gën a doy waar yëkkati xam-xam tasaare ak réer aw xam-xam kay fu mu ne bu fa nekkatul rek ak réer ab ah, béréb bu ñu fay jàngee diine ji nga fa xamee diine man faa jàng alxuraan ba mokkal ko ba mën koo bind ñu dem ba yàgg ñu indi fa mëneen njàng moo xam ni ñoom dëgg yàlla la ci app du diine bu dee fukk juróom-ñett yooyu yëpp yëpp yëpp du diine su ko defee ñañ doon jàngal diine léegi dañuy wàññeeku loolu nag bu yàggee fu ñu jëm fu ñu jëm xam-xam moom moom moo fay jógee xam-xamu diine moo fay jóge xam-xam bu am njëriñ moo fay jógee ak réer daal di koy remplacer ak diplôme yu ñu mën a am nag yi noonu koy dund ñaata école arabe lañu tëj lu ko tëj école français lañ fa def wala ñu fexe koo tabax ñu tëral ko tëral leen woo xam ni arabe bi lañ koy boole français bi waaye français boo xam ni nee nee na ñoo yaay fii la ñuy jàng français waaye par samedi wala ajjuma daal. oustaz bi dina ñëw xale yi léeg kum neex ñëw bind kum kum neex sax maanaam nga toog moom du ñu obligé kenn ci araab bi samedi ba samedi wala ajuma ba ajuma am na fii may waxee nii école bu siiw waaw nekk privé xam nga oustaz bi nga jël te yow daal da koo jël pour xam nga ni ñi ëpp ñi jàng ay julit lañu buñ déggee ñu ni léegi école bi amul araab bu kenn du jàng diine dañuy dem faneen tax nga dugal ko ci kese mbokk yi nun li nu dal metti na trop trop leen li bañ koo xam sax moo gën xam ko waaye booy gëstu mënoo ko ñàkk xam waaw nee na ak tasaaroo di bàyyi ci kaw suuf bokk na ci ak jigéen ñe gu jigéen ñi ñoom marché yi lëkkaloo gu ñu ak naanum sàngara mu bari nee yii bokk na ci yi wane ni bis penc day moom it gis nga ko waaw toogal fii léegi wax ak ngay wax ak ca siin man ngaa bañ a dem te mu daal lay indil marchandise ma nekk ca marché am ba indil la ko sa marché bii loo te doo jóge fi nga toog waaw rek jox nga ko xaalisam indil na la marchandise yéen ñaar kenn fekkiwul moroom ma man gën a bañ a gisante sax jëm ak jëm Eh, mbokk mii da doon laaj nag xam naa du fi xaj tey ndax dañu ne kuy sukuraat ku ne seytaan di la ko dikkal waaw boroom xam-xam yi nee nañu waaye du ñëpp nag am na ñu muy dikkal daal di joxe ay misaal ndax seytaane li ko yitteel mooy day bëgg ba booy faatu nga réccu li nga nekkoon ci diine ji ci lislaam jullit bi nga doon nga réccu ko loolu la bëgg ndax soo ko réccoo rek ba léegi am na la moom doomu xaram ji Ah, astaghfirullah ngeen baal ma saay-saay bi eh, moom moom iblis du bàyyi nit ki mukk da koy topp da koy topp da koy topp ba bi muy sukuraat waaye alhamdulilah boroom xam-xam yi am na ci ñu ñun yi du du ñëpp lay fréquenté moom iblis xam naa du fi xaj mooy alaamatul kubra yi nga xam ni mooy xuruju masiihu dajjal nag ak nusulu isa alhamdulillahi alkarim silmilan alastighali bi furudin wa sunan sakartuhu lianna qad saxani liwatani bihi nafa ma anfani